te bàyyi di xool jëf yi bon yi rawatina jëf yi bon yoo xam ne ay sos la te xataa bu amoon sax yàlla baax na baax boo xam ne am na jaamam yoo xam ne topput leen dara nañuy wax jàmm nañuy wax lu rafet Cheikh Ibrahima dem woon ku taaru woon la ci jikko ku taaru la te xam-xam ku taaru ci defar doomi aadama am kersa ba am kersa ci say doom moom ñi àndoon ak moom te nekk ci li mu nekk ne dafa dégg ci imam Assane Cissé radiyallahu anhu wax ne mu ne Mawlana Seydou Aliou Cissé radiyallahu anhu jamono bi mu nekkee Kossy maanaam dafa am ay mbokk yu mosoon a ñëw bëgg ko génnee ci leen nekk naan leen dégg naa dada dégg nañ ne daal ci ay caaxaan rek ngeen di nekk jàngu leen jàngalewu leen topp leen diine ji te yàlla xam nga koo xam ne bakkanam doy na dox. bés ñu doogul ne koy jël si. ñu ñëw gane si koo si. Serigne Aliou amul seen jot. bu xëyee mu ngi ci jàkka ji. mu ngi service bàyyi. guddi ak bëccëg. ba muy ñibbi. ñu mu ne ko man danaa la wax lan moo doon sama yoon tey. dafa am safaan yu déggoon ci yéen. waaye bi ma ñëwee. ndekete lépp ay dég-dég yu bon la rek waaye dara dara amu ci. amoo sax sama jot ngir jaamu yàlla. jàppal ci sëñ bi. jàppal ci li nga nekk. yaa nekk ci dëgg yéen a nekk ci dëgg loolu mooy li nga xam ne noonu la ñuy seedalee nit waaye nit ku baax ñu koy sosal ay loolu du wax bàyyi nag mayuñ kenn ak ku mën a doon moom képp koo xam ne nii yaa ngi nekk nit wala ngay sëriñu tariixa wala ngay borom lasraar wala ngay intiqaam wala ngay borom police wala loo mën a nekk mu ngi lay oo ci jàmm di la oo nga maandu ci Mawlana Cheikh Ibrahima nga alxaaji Abdoulaye Niass ak njabootu tey bii sant ñu ñu def lu bon te danañ jéem lu ñu mën dañ ko def buñ juumee danañ jéetal yàlla sant ñu ñu xaste wala ñuy wax lu bon waaye wóor wóor na ko ne ba fii mu toog xar fu Sénégal ba jàll ba Mauritanie. jàll ba Singapour. ay junne junne ku nekk pare nga pour sa bakkan ngir Mawlana Cheikh Ibrahima. kon gouvernement bi nag xam ne moom lii kenn la ci yow. ngeen baal ma parce que porte parole am na ci pays. ngeen baal ko parce que porte parole am na ci pays. ngeen jéggal ko sama xol moo ma laal. ngeen jéggal ko na xol. buñ waxee buñ waree wax dana wax waaye moom wax jii muy wax waxi taalibe la. waxi ku gën a xeebu lay wax. nga xam ne da ngay defar nit ñi ñuy tudd yàlla. da ngay defar sa réew. da ngaa defar àddina. war naa wax loo xam ne wax na am. fi mu ne bii nag dañ ñaan yàlla yàlla jeexal ko. kenn wala boog man boog kenn kenn ku mën a doon rek man pare naa ko kenn wax ak yow. waaye waaye moom nee na mayetul kenn kenn kenn ak ku mën a doon moom pare na pour jàkkaarloo ak yow ngir bàyyi. bu ñuy waxtaan nañu waxtaan bu ñu waxu. maa ngi sant yàlla di wax ne bu ma waxee xool waaye dañoo am sëriñ boo xam ne amul benn ci àddina koo xam ne xam-xamam dafa leer. ولنت سبيلي واضح لمن اهتدى وقد خاب من يغلي لأوجاجي ويقول في الميكرو su ma yoon jëm ci yàlla man Mawlana man Cheikh Ibrahima Niass moom sax bu wax Cheikh Ibrahima Niass moom sax si tegtali maqaamaam la Ibrahima rek rek bëri seetlu nañ ko. néew na wala ba gisuma man pour signé ne Cheikh Ibrahima Niass ngir tawam am ñu lay ci baax kon daanu jot fii ñu daanu jot fii def sa waaye noonu gën a dund na am. bu dul toon doomu aadama sax jox nañu suñu bakkan yi rawatina mu nekk sëriñ boo xam ne sëriñ bu mag kon li tax muy wax gën jàpp rek fitna xewut dara xewut waaye fa am ñuy def ay kaset yoo xam ne wax ci fitna yi ngeen def kër gi beneen wax di wax di wax ñun kër yëpp dañ leen respect kër yëpp dañ leen di gën bu baax kër yëpp dañ leen di yéene jàmm ñooñu jàmm la ñu yéene sant ñu kenn ci njaboot bi moo wax leen lu bàyyi kenn du ko laaj bàyyi kenn ko wax ci moom te loolu nga jeex na suñu tey ñu koy def ak ñu ko ñor affaire bi nañ ko bëri pour loolu loolu nga jaas ku su soxla wuñ ko waaye am nañu yàlla yàlla yàlla wax dëgg yàlla ko ci barke suñu sëriñ si ci barke xalifa bi ci barke njaboot bi ci barke porte-parole bi ci barke doon yi bàyyi ci barke sëti bàyyi lu ma ci ñaan yàlla yàlla jox naa ko nañ bàyyi bàyyi nañ bàyyi njaboot yi bàyyi suñu ay doom ñàkkuñ fayda bàyyi suñu ay sët sa doom yaa ngi fii nii moto ñi ngi fu nekk utuñ jeer am yu xew yoo xam ku nekk gouvernement bi gën cee àddu waaye gouvernement yàlla bi nag moo ñëpp doole kon yéen ñii wax bàyyi da ngeen bàyyi bàyyi ñàkkuñ fayda dañoo bañ xëy ci réew mi rek ngeen baal ma ne monsieur le porte-parole si di Cheikh Mamadou Mahi maa ngi lay ziar bu baax a baax yaa ngi def la war yaa ngi liggéey yaa ngi déglu liggéey bi pays bi wax ko sa kàddu la waaye nga baal ma dama ko abbu dama abbu xadratu ilaahiya di wax ci lisaanu xaal daay waxee ak lisaanu mahabba ak taalibe waaye kay di am na wax bàyyi lañ bàyyi bàyyi la maam alaaji Abdoulaye Niass góorwaa bi nañ bàyyi ko ñu baax man nga far naa ko jox suma bakkan far naa ko jox li war Sénégal yëpp ku ñeme na ñëw jàkkaarloo ma soo ma gañee ñeneen na jëlee ma gañee su ma la gañee kenn du ma gañee ma ci bàyyi kenn du ma ñun taalibe yi a da ngeen gën a góorgóorlu tegu ci yoonu baay bu ñu ñàkk lu baay bi comme nañ ci wax sama classe bi bu ñu ñàkk lu baay bu ñu ñàkk lu baay ci wax bu ñu ñàkk lu baay ci aspect bu ñu ñàkk lu maam Alay Baay ci wax ñun ñooñu dépassé nañ loolu waaye dépassé yoo sa cadre yëpp yàlla ñu takk ci yow seen cadre yëpp yàlla la ñu cadre bu may yàlla dafa morom yi kenn su nga xam ne ay millions yu déglu yàlla ci lu nekk alladina yaskuruna allaha qiyaman wa quudan wa ala junubihim fi toogee ba léegi ñaata sikkar lañ ko tuddee nii kooku moo Cheikh Ibrahima. waxoon na moom bàyyi na ma def te kare daan wax ne mën naa nit ñi jaaxal nañu ni ma amee xam-xam ni ma mënee wéy ni ma mënee yaar ni ma mënee santaane la tuub allahu akbar Cheikh Mahi nee na kon kon wax na nee na waaye nee na wasaana ilaahi nafsi yabtahila laa waraa lam yulqihaa maa laysa fi shari jaay wax lépp nag li wax ni mooy wax ëpp na lépp waaye nee na yaa utay dëgg na waaye nee na yàlla sàmm na sama jaam bi sàmm na sama bakkan ba laa waraa dex na li fekk jamono dafa fekk mu ku la ku la ku la ku la seen ci mbaa lu ko la waxee waaw ñu koy doon seen sa jàpp naa duñ fekk sa loxo képp koo xam ne nii settantal na pare bàyyi na duñ la gis mukk mais jéng def ci céréale loo xam ne di jàll wax ji foofu la dañ ma teg ci ministère du chef wax ne man yaa suñu ko amee chef fa zéro bi ñu naan chef kon ñu tam loolu la ñuy wax taalibe yi parce que li tax may wax génération bu bees bi ñooy problème suñu doom yi xale yu ndaw yi intérêt lu nga leen ci génnee waaye ñun ñu ngi xamal ñëpp ne dañ teg ci yoon ku am preuve booy wax ki nekk wax kese yoo xam ne ni waxi noonu la ak waxi yàq na bàyyi santaan na wala ne waa laa moo ko fax cher ku jur doom kii suñu ma gisee ci njuumte buñ ko askanal bàyyi dañ ma ko askanal bàyyi dañ bàyyi bàyyi dégg nga toog nag fii benn bés ne diw diw diw diw xamuñ dara ndax tamit sax mu ne mën boobu la sensibilisation lan moo ko woote ñii wax ne loolu laa bëgg ñu jëflante Cheikh Mahi borom xam-xam Cheikh Bougane ñeneen lañ sët yaa ngi doom yaa ngi université yi dañ woote xam-xam dañ wax ci xam-xam dañ joxe ay preuve da bàyyi tas kay loolu laa amoon wax ci côté boobu ngeen baal ma. d'accord waaye. kon dañ leen góorgóorlu ñun taalibe ñu am comportement boo xam ne lii dana gën a tax ñu wàññi daawaa kër bi kër dana gën a tax ñu gën a nosewu ci gannaaw xalifa dana gën a tax ñu gën a respecté imam bi dana gën a tax donc borom bii ñu tànn kàddu yi ñu dëppale ko mu nekk benn kàddu boo xam ne kii du wax fii kii du wax fii ngeen maal ma dama sob rek waxee ni choc moomu jàpp waaye du dara ngeen maal maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm maa ngi nuyu état bi bu baax encore monsieur Boye dina jëndante ay nuyoo ak i ñaan jëm ci moom lii ma wax nag waxuma ci turi kër yi turi taalibe bi muy wax rek boo xam ne ay millions yi millions yi yoo xam ne ci jinne yi ak rawxaan yi yoo xam ne ñëpp ay taalibe bàyyi la dégg nga wax laa ñu bokk ci laa wax dañ leen bàyyi bàyyi dañ leen bàyyi ñu bokk bàyyi nañ leen suubuwaat ñun taalibe yi xatara bi ñu am Mali laa jugee bu yàgg keneen ñu jugee feneen ñu ngi seetaan Nigéria waxuñu am benn problème yu xam ne lépp ci ñun la te man maa ngi gën a teew maa ngi gën a gis ñu ngeen tubaab ñu gën a sabar ñu nosewu dimbalante ku nekk yaa ngi yore sa bakkan ku ne yaa ngi yore sa soxna bu amee jabar ku ne yaa ngi yore sa xaalis bu amee xaalis ku nekk yaa ngi yore sa oto ku nekk yaa ngi nokk ci nokk yu yàlla bi te yàqaloo sa borom dara pourquoi pas kon ñu ñëw nosewu ñu liggéey nosewu boobu sëriñ bi tëral na wax ko ci kilifa yi nekk nañ nosewu ci ñëpp di bokk nekk benn ñun taalibe yëpp